Euh, Bassirou euh, Kebe mu nekk euh, membre ci bureau exécutif mouvement des cadres ci parti bi di PASTEF moom la ñu invité tey Bassirou maa ngi lay nuyu. waaw ah, asalaamaaleykum Abdou Khadre sama sëriñ maa ngi lay nuyu bu baax. di la gërëm di la remercier ci invitation bi ñu may occasion yu ñëw fii ci réew mi FM wax suñu xalaat ci li xew ci réew mi di nuyu waa réew mi FM yépp tamit di nuyu auditeurs yi ñuy déglu jërëjëf. Euh, jërëjëf euh, Bassirou euh, Kébé euh, yow nga bokk ci euh, mouvement bi nga xam ne moom moo ëmb cadre yu euh, parti bii di Pastef parti Pastef nag mën nañoo wax ne ay fan a ngi nii. yéen yenn a li nga xamante ni tey moom mooy euh, média bi ci débat yi garam place yi même sax au niveau international presse étrangère bi dafa mel ni seen mbir mi euh, daal na leen di intéressé muy seen euh, muy njiitul Pastef di Ousmane Sonko mi nga xam ne dañu ko tuumaal li nga xamante ni moo jëm ci wàllum siif jigéen ak li nga xamante ni moo jëm ci wàllum menace de mort bassiru mbir moomu bi mu xewee ngeen xëy gis ko si presse bi yan yëg-yëg moom ngeen amoon. waaw comme comme ni nga ko waxee moom yaakaar naa ne temps yi ñu toll ñun ni ko jeunes yi di waxee ñoo am buzz. <laughs> waaye nag du du lu bees Pastef moom daanaka. mais du bu baax. waaw waaw dinañ si ñëwaat loolu dinañ si ñëwaat mais daanaka Pastef bi ñu ko sosee ba léegi 2014 euh, li muy occupé actualité bi moom bëri na trop. bi ñu yeewoo keroog euh, yëg loolu lu ñu ko nëbb am na am na lu am na lu ñu yëg lu fort waaye nag. dafa am loo xam ne am na ñun dañuy yàgg liggéey ak président Ousmane Sonko xam ko bu baax ak lu ñu nouvelle boobu bett bett bett moom même avant muy wax ca dimanche ba dimanche 7 février avant muy def déclaration pour wax ñu carrément li xew ñun xamoon nañ ne loolu takku si parce que Pastef sooy xool bu baax Pastef dafa am histoire histoire boobu mooy que président Pastef ak ki ko jiite muy président Ousmane Sonko. du la première fois ñu leen di euh, taqal si yu mel noonu de loolu dañ koy yàgg vivre état bi di ñu teg euh, ay affaire di teg ay ay tuuma si président Ousmane Sonko te tuuma bu ñu mun ci teg rek dañ na dama lay fàttali ne euh, Ousmane Sonko jiiñ nañ ko fi ne rebelle la jim nañ ko fi ne jihadiste la bi mu leen doyulee dem nañ fi élection 2019 di campagne ay journal bind ne dañ koy financé Tullow Oil moo koy financé loolu yëpp teg nañ ko ci dara mais loolu yëpp daf si set wecc ba sénégalais yi xam ne amul ci dara loolu yëpp ay complot yu état yi bu état bi doon teg ci kawam la ak ci Pastef parce que envolu Pastef ni ni Pastef juddoo gaaw a dugg ci xolu sénégalais yi moo leen jaaxal te neexu leen bii nag bu mujj bii nag dëgg la mooy euh, bi gën a indi wax parce que mooy bi gën a bon mooy bi nga xam ne dañ si bëgg a taqal deru Ousmane Sonko proprement mooy bi nga xam ne soxor daf si feeñ mooy mooy mooy complot bi mujj waaye nag euh, yaakaar naa ne euh, ak euh, ni mu avancé nii ba li ñuy gis chaque jour muy génn deru Ousmane Sonko. Euh, set na si wecc sénégalais yi bataille de boobu ñun yaakaar naa ne gagné nañ ko ba pare parce que sénégalais yi xam nañ ne lii yëpp amul te dinaa si ñëwaat. d'accord euh, jërëjëf euh, Bassirou kebe li nga xamante ni nag moom mooy média bi comme ni ko doon waxee wala ngeen occupé li nga xam ne mooy actualité daa ngeen ko occupé mu nekk loo xamante ni loolu lépp da doon jëm ci seen diggante ak état bu Sénégal presque wala si da doon nekkoon ci benn cadre muy cadre politique mais bii nii est-ce que. occupé wu leen nag euh, débat yi ci leneen loo xamante ni day mën na leen a yàqal lu baree bari ci lu jëm ci wàllum politique ndax lii yéen du seen diggante ak Macky Sall du seen diggante ak état bu Sénégal diggante Ousmane sonk la euh, beneen bi du diggante Pastef ak benn xale bu jigéen du diggante Pastef ak état diggante Ousmane Sonko la citoyen sénégalais ak benn xale bu jigéen bu tudd aji Sarr citoyen sénégalaise ñoom ñaar ñoo ñoo jotee est-ce que amul leneen lu leen mën a yàqal lu mu mën a yàqal si ki jiite parti bi. si complot yi état Sénégal euh, mës a def yëpp contre Pastef si taqal dari ñu mës a def yëpp bii amul bu ci gën a politique bi bii. politique na. complot politique la. du liñ ko ñoom li liñ ko bëgg a wax loolu lii ñu waa ñoom la waa APR ne que euh, affaire privée la benn citoyenne sénégalaise moo porté plainte beneen citoyen sénégalais maa ngi leen di dégg loolu mooy seen élément de langage waaye bii politique def ci takk rëpp parce que complot la. dañu bëggoon daaneel Ousmane Sonko te lu tax ñuy wax loolu ñun du ñu wax waxu caaxaan ñun yàgg nañ ñu wax ne que Ousmane Sonko avant 2024 état bi dina ko fexeel te ay sources yu leer ñooñu ko no wax ñun ñu bokk seen biir yàgg nañ ñu avertir du ñu du ñu naan def leen attention Ousmane Sonko dinañ ko bëgg taqal affaire u mœurs te bii du premier complot comme ni ma ko waxee sànq complot Ousmane Sonko yi def te bi njëkk complot bi njëkk bi ñu def Ousmane Sonko mooy décret numéro 2016 12 39 bu 26 août 2016 mooy décret bi sax yaakaar naa président Macky Sall la gën a rëccu mooy décret bi mu dàqee Ousmane Sonko ne dafa def euh, euh, manque de discrétion euh, professionnel am révélé ay affaires yoo xam ne waru ko woon def loolu musta am ñu bëgg a toroxal nit dàq ko si liggéeyam boobu mooy complot politique bi njëkk yaakaar ne suñ ko dàqee ci liggéeyam du talati politique dina tal lu mu dem dundalee njabootam faf nag sénégalais yi si seen bopp. ni xam ne kii nitu dëgg la kii jëriñ na Sénégal ñu fal ko député jox ko salaire jox ko oto muy dugg ci dëkk bi jox ko nag min minbaar bu assemblée nationale muy wax ak ñoom chaque jour di génne seen ay tooxi duuna loolu di leen gën a metti ñu jógee foofu dem élection présidentielle avant élection bi di di di di di ñëwul wax naa ko sànq lu nekk tegal nañ ko ko Ousmane Sonko rebelle la Ousmane Sonko jaariste la Ousmane Sonko dafa muur ay jabaram ba du duñu ba ñu gis. loolu yëpp mais lan la nekkee complot politique. non damay ñëw parce que dafa dafa am solo. Ah, dafa am solo ñu ñëwaat si historique pour ma ñëw foofu laay daanelee. loolu naa tontu sa naa tontu sa laaj. ñu tegal ko boobu sénégalais yi teggi ko xam ne li ñuy wax yëpp dara du si dëgg ñu ñëwaat élection comme ni ma ko waxee sànq ñu ne dañu ñu financé am na ku fi am na benn benn ministre bu fi taxawoon ne ay mallette russe yu jaar ay Guinée Bissau yooyu yëpp teggi ko am na journal bu bind te ba léegi baaluñu si te loolu garaaw la. nekk Ousmane Sonko Tullow Oil moo koy financé Tullow Oil génn ni du dëgg amul ba léegi mënuñu la génneel benn preuve ba léegi non déglu ma ba léegi ñu la génneel euh, mënuñu la génneel benn preuve loolu yëpp pour jaxase xelu sénégalais yi pendant élection yi euh, porté ñu plainte xëy na parce que euh, ñun parti politique lañ presse am na xam nañ dayoom ci démocratie xam nañ presse nu mu amee solo xam nañ loolu yëpp te amu euh, te jot boobu sax dañ ko amul woon parce que liñ ay accusations yu ridicule la yoo xam ne duñ si perte suñu temps di di di porter plainte di leen gën a ridiculiser ñoom bii nag mooy bi mujj accusation de viol damay delluwaat si baat bi Ousmane Sonko wax le dimanche 7 février bi muy janook askanam di expliquer complot politique la Ousmane Sonko violé wul xamul nu ñuy violé demu fa pour violer Ousmane Sonko dafa dem pour faju ci soo liiree PV PV audition gendarmerie bi nga dem si conclusion yi balaa sax nga dem si conclusion nga dem si euh, si interrogation yi bëgguma dugg si détail yëpp mais gis nga contradiction yi am li ndaw si wax euh, lim lim lay wane dara dara dara amu si li témoin yi wax euh, yëpp sénégalais yi mun nañ mun nañ si jot léegi gendarme yi dem ne dossier bi dafa am ay contradiction gendarme yi nag dama lañuy delloo njukkal waaye kenn bàyyiwu leen ñu terminer seen liggéey parce que procureur bi procureur Serigne Bassirou Guèye dama koy cité nga xam ne moom APR la fi nekkal dossier bu soxal sénégalais yi boo xam ne xaalisu sénégalais yi moo si nekk da ciy teg kudam comme ni ko patron Macky Sall di defee waaye dossier boo xam ne si opposant la dañ koy def ñoom fast track moom moo arrêté enquête gendarmerie bi désaisir leen alors que gendarmerie ñu ngi woon sur la bon voie élément à décharge yooyu nag nekk ci PV d'audition yi lu tax duñ ci wax élément décharge xam nga euh, euh, enquête dafa am élément charge ak élément décharge maanaam euh, élément décharge yooyu nga xam ne day teggi tuuma ci Ousmane Sonko nga xam ne sax même su dee yow àndoog Sonko di sa xel dina ñaaw ni lii complot la bi mu commencé bëri gendarme yi di ko gis ci le procureur bi dagg enquête bi ñoom nee nañ lii affaire privée la waaye affaire bi <laughs> depuis depuis bi mu amee politique daf ci daf gën a dugg encore yow affaire privée nga nga euh, dimanche Sonko wax lundi ay nitam dem buntu këram buntu këram laa wax de demuñu taal fenn buntu këram ñëw di ko soutenir nga woo police ñu ñëw def fa li ñu fa def nga ne affaire privée la affaire privée la nga yónnee convocation député boo xam ne amoo droit di ko ko yónnee comme ni ko article 51 règlement intérieur assemblée nationale waxee sans que ñu dindi euh, mbalaanu kirlaayam nga yónnee ko ko nga ne loolu politique raxu Euh, euh, politique raxu si waaye nga nga ñëw nga ne sa militant yëpp bu leen si wax nag pour am sa objectif boobu rek ne ne ñun suñu yoon nekk si alors que xam nañ ne euh, ci nga bokk nga ne bu leen si wax loolu nga ne nga ne nga ne nga ne politique raxu si politique si te ñu bëri ñu bokk si dossier bi soit ay politiciens lañ soit seen ay mbokk ay politiciens lañ avocat bi ki bind plainte bi te ñun mu wóor ñu ne moo ko bind Sidi Ahmed Mbaye ki transporté Euh, xale bi xale bi ki ko jël si nga xam ne nijaayam euh, directeur général la bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar nekk ku jege Macky Sall yooyu yëpp nga ne politique politique bokk si ak léegi nii seen seen leve levée euh, immunitaire bu jaarul yoon mi te loolu tam naa si ñëwaat ak ni ko ni procureur transformé plant bi def ko compte X ba pare nga bëgg a lever immunité Ousmane Sonko mel ni Ousmane Sonko moom mooy X. donc loolu yëpp da lay won ne élément yooyu yëpp ma la wax ni da lay won ne politique daf si takk. lépp c'est un dossier politique. léegi euh, dañu gis ne kenn ci seen euh, kenn ci avocat osman sonk Sonko yi di maître euh, Ciré Clédor Ly moom nee na complot la boo xamante ni ni nga xam ne mën nañu ko ficeler maanaam ni ko tegee complot bi du loo xamante ni tey lu lu lu jaar yoon la yow est-ce que da nga jàpp ne état moom moo nekk ci ginnaaw xale bu jigéen bi moo ko def loo moo ko wax pour mu tuumaal Ousmane Sonko yéen loolu yéen loolu ngeen jàpp. xam nga soo nee état état lu large la état état état mooy man ak yow mooy ñëpp mais ñun li ñuy wax mooy que régime mu yi Sall régime am si boppam ñoom ñoo def complot bi ak ñu nekk si biir au cœur du régime ñoom ñoo ko def complot bi nag comme ni nga ko waxee matul parce que complot cuune la ñoom ni ñu cuunee si ni ñuy doxalee réew yoree réew pendant plus de neuf ans munoo fexe ba réew mi génn si euh, réew yi gën a ndóol ci àddina bi seen cuune boobu it dafa feeñ si complot bi parce que complot bi su matoon mun naa la waatal ne tey jii Ousmane Sonko kenn waxatu ko kenn waxatu ko mi ngi mi ngi mi ngi ci kaso ba te te te te boobaa sénégalais yu bëri dinañ gëm ne ñoom ñu def complot bi da ñoom dañ si taq Ousmane Sonko jour bi muy wax désigné nañ désigné na nit ñi mu xam ne ñu ngi si complot bi wax na ko Macky Sall président Macky Sall euh, amul élégance ni muy xeexee opposant am yi du ci élection du dem ak ñoom def débat démocratique moom xamul loolu. moom nu mu lay faagaagalee ba doo bokkati ci élection noonu lay def def na ko Karim Wade bi mu ñëwee si pouvoir activer CREAM ñu génne vingt cinq personnes ne ñii la ñuy topp vingt cinq yooyu mun nga ma wax ñaata lañ si topp bi ñu si paree si Karim Wade ak si Tahibou Ndiaye kan lañ si toppaat ñu si bëri si vingt cinq ñooyu lu tax topp leen parce que dañ ko rejoindre mun naa la citer ay tur Abdoulaye Baldé ñoom Oumar Sarr am na si sax koo xam ne dañ ko newoon interdiction de sortie du territoire waaye bi muy génn bi muy violé loolu li ko justice teg pour le Sénégal justice bi c'est pas une justice indépendante ñoom ñoo ko waxal seen bopp bi muy génn ci territoire bi ci avion wu président de la République Macky Sall lu dugg génn ak moom. d'accord mais muy muy Ousmane Ngom donc damay continuer. Ah. deuxième bi xalifa Sall bi Sénégal bi Sénégal wala mosoo gis procès ay appel ay ay ay recours bu gaawee noonu ci benn at yooyu yëpp defal nañ ko ko mooy fast track boobu moom fast pour opposant la. yooyu yëpp defal nañ ko mais léegi sénégalais yi c'est normal seen xew seen xel di ñaaw parce que opposant bépp bu génne boppam ne damay jaamaarloog Macky Sall Macky Sall utiliser justice pour daaneel la loolu la def Karim Wade def Khalifa Sall loolu la bëgg a def euh, si Ousmane Sonko mais dama koy wax nag Ousmane Sonko du Khalifa Sall malgré respect bi ñu am si moom yëpp Ousmane Sonko du Karim Wade bii du demee noonu. lan moo lan moo tax yéen euh, ñaari baa yéen ñëpp yéen waa PASTEF euh, Basirou bu ngeen waxee ngeen ne Karim Wade. Euh, du Ousmane Sonko Khalifa Sall du Ousmane Sonko ak bii du yomb euh, ak Macky Sall du ci génn mais yéen discours bii ngeen di wax nii euh, PDS moom lañu doon wax ka ne Macky Sall bu du tëj Karim Wade ak bu ko tëjee nangam ak naangam duñ ko nangu waa xalifa Sall loolu lañ doon wax te gis nañ ne. Euh, après lu Karim li mujjul fenn lu xalifa Sall li mujjul fenn yéen même discours bi ngeen di tenir léegi fan ngeen teg ak yan élément fi ngeen sukkandiku ba ne bii dina wuute ak bu Karim ak bu Khalifa Sall. jërëjëf sëñ Abdou Khadre contexte yi ñoo bokkul xam nga Karim Wade biñ koy biñ koy teg loxo Macky Sall la ngi soog a ñëw pouvoir am benn li ñuy wax état de grâce boobu soo fàttalikoo sax sénégalais yi ñu si ëpp bi Macky Sall génnee teg yi ñu si ëpp dañ si àndoon ñu si ëpp dañ ne ñi fi yoroon nguur gi dañu war a rendre compte boobu Macky Sall amoon na amoon na xëy na grâce boobu bala balaa ñu siy gis euh, yi mu si doon def ak ni mu doon manipuler justice amoon na grâce boobu amoon na nit ñi ci gëmoon nañ ne que am na bëri en tout cas ñu gëmoon nañ que dafa ñëw pour nit ñeneen ñi rendre compte te te CREI yi moo naroon def loolu amoon na loolu bu bu bu Khalifa Sall bi tamit bugguma sax dugg si ay détails parce que boobaa day mel ni may mel ne kuy ngàññi mais man personnellement système de défense am ak ni mu doon défendre boppam man d' accord ma ci woon gisoon naa ne dafa soo génnee def sa conférence de presse di. di naan républicain la di jox sa confiance justice et cetera naan am nga confiance justice loolu dafay dooleel Macky Sall parce que ñun ñëpp xam nañ ne justice Sénégal du justice bu indépendant ñoom ñoo ko waxal seen bopp union des magistrats du Sénégal ñoom ñoo ko waxal seen bopp dañu nekk si réew moo xam ne séparation des pouvoirs amu fi dañ koy gis ci assemblée nationale di ko gis ci justice bi donc bokkul bii li tax ma ne la du du ànd ñun xeexuñu pour Ousmane Sonko man mi dama dugguma ci politique ngir Ousmane Sonko Ousmane Sonko dafa porté benn projet ñun ñëpp dañu toogoon suñu suñu kër yi mu am lu ñuy métti si Sénégal mu am loo xam ne metti nañu trop mu ñu ko wax ñu gis Ousmane Sonko génn ko di ko wax am benn projet patriote pour Sénégal projet boobu espoir la pour des millions de personnes au Sénégal te moo wax la dara duñ ko mus a bàyyi kenn kenn di rey projet boobu dañ si liggéey dañ si liggéey xeex si gëm ko gëm ne loolu mooy changer Sénégal kon. mu mais bi du yomb. waaw déglu ma maa maa ngi siy ñëw kon ñun du ñu bàyyi projet boobu egg. de un complot bi ñu def Ousmane Sonko comme ni ma ko waxee sànq matul dafa dafa leer carrément ne que complot la dafa ba pare du du complot boo xam ne dafa baax complot boo xam ne ay cuune ñoo ko def kon ñun on a tous les éléments pour wane ne que lii lii lii du dem que lii du euh, euh, du justice te loolu on va le prouver de deux on est mobilisé gis nga bloc constitutionnel Sénégal ak déclaration universelle des droits de l'homme dafa dafa ni euh, soo gisee ne sa sa régime wala sa pouvoir sa état da lay opprimer am nga droit résister mooy appel à résistance boobu Ousmane Sonko def ñoom ñu naan ay appel à la violence ak à l'insurrection du dëgg on a le droit de résister te on est déterminé à résister lépp lu ñu yoon may dinañ ko def ba mu jeex takk te suñu suñu war a yore yoon defuñu defuñu defuñu lu lu yoon wax ñun dinañ jàmmarloo ak ah, ñoom. mais yow yaa ne yoon amu fii nga ne lu leen yoon may. déglu ma dama ne la justice bi ni muy doxee. justice ni muy doxee moo baaxul justice Sénégal indépendant Sénégal am na ay texte Sénégal si àddina bi kenn ëpp ko texte yu baax kenn ëpp ko ay règlement yu baax loolu am na fi waaye justice bi ni muy doxee président la république dugal ci loxoom takk ci rëpp président de la république taxaw naan dossiers yi maa si teg sama kut président de la république taxaw naan dëkk bi am na ñoo xam ne soo leen tëjee. Euh, dëkk bi yëngu président la république bi wax loolu xam nga ne justice daf si dugal loxoom ba mu takk ba mu takk ci noonu lool lool foofu la ñuy waxee mais dama ne la lépp. lu ñu yoon may si ay text textes nañ ko def appel résistance boobu yoon daf ñu ko may te nañ ko def ba mu jeex tàkk loolu moom. mun naa ko léegi yéen euh, mhm. euh, tey par exemple tey euh, mbiri Ousmane Sonko ma ngi ci yoon yéen nee ngeen bii du yomb te yéen tey par exemple tey bu ñu ko convoqué bu ñu dinee mënaanu kiraayam bu ñu ko convoqué dina wuy si léegi bu ñu ko convoqué tey lu ñu ko kenn ñu inculpé Ousmane Sonko def ko mandat dépôt. Mhm. lan mooy nekk yéen seen taxawaay yéen waa Pastef. xam nga nag Abdou Khadre sama sama xarit nga waaye nag xam nga ne du ma toog fii si si sa rajo bi di la wax suñu stratégie ñun am nañ ay stratégie si lépp lu mun munti xew ci kaaw Ousmane Sonko. mais mais du xam nga damay reprendre keroog suñu administrateur Birame Souleye nga xam ne instant bi mi ngi en garde à vue loolu tam dama si bëgg a ñëw si kanam si arrestation yi. dafa newoon ñun taaluñu réew ñun ay xel la taal. Mhm. pour ñuy comprendre ay gët la ñuy taal pour ñuy gis ay nopp la ñuy taal pour ñuy dégg ñun si loolu lañ nekk ñun du ñu taal réew parce que li ñu tax a dugg si politique mooy defar suñu réew li ñu tax a dugg si politique mooy dañu gis ni suñu réew ñi ko yor yelloo ko ñi ko yor du ñu ay dirigeants yu baax ñu bëgg defar suñu réew kon militant Pastef ak ku gëm projet patriotique bi président Ousmane Sonko di porté taal réew du mës a nekk soxol taaluñu réew sénégalais yi la ñuy seen xel ak seen xalaat dina suñu taalee sénégalais yi ñoom ba pare ku nekk di nga jël sa responsabilité individuelle suñu bëggee saax-saaxee ki nga xam ne mooy porter le projet patriotique projet bi nga xam ne incha allahu rabbi 2024 moo koy yóbbu pale de la république ñun si loolu lañ nekk mais taal réew xalaatuñ ko te duñ ko mus a def. mais est-ce que yéen euh, mbir mi ba mu xewee ba léegi nii est-ce que amul benn déception boo xamante ni tey am na seen wala amu leen njort bu ñaaw ne léegi kat euh, mënuñ ko wax ne seenum yalwaan. boo muytul est-ce que këppul Bassirou <laughs> waaw xam nga ñun ñu commencé wax ne yéen chef de l'opposition xeet yooyu ñu jekk-jekk mbir mi xew. waaye déception bi est gis nga ko jour lundi boobu 8 février bi bi patriote yi wàccee euh, euh, kër Ousmane Sonko taxaw fes fa dell wane seen motivation ak seen taxawaay loolu déception la est-ce bi gis nga ko keroog bi président Ousmane Sonko demee université man mosuma gis marée humaine bu toll noonu c'est-à-dire que c'était à perte de vue caméra bi day filmer ngay gis nit yi. fu nekk est-ce que ñooñu gis nga ne déception dafa am si ñoom au contraire mais ñun xamoon nañ ne avant mille vingt 2024 euh, lu mel lu mel nii wala lu lu nuróog lii dinañu dal ñun yaakaar ñun dañuy toog nii rek di opposer démocratiquement nguur gi bàyyi ñu si lool xamoon nañ ko xam nañ ñu ñu jàmmaa lool xam nañ leen xam nañ ne du ñu ay nit yoo xam ne gëm nañ démocratie du ñu ay nit yoo xam ne euh, gëm nañ ne sa sa opposant da nga ko war a traité en gentleman ni loolu xamoon nañ ko déception amu si au contraire lii daf ñu gën a jox motivation man sama bopp laa koy waxee man militant Pastef laa bokk si cadre Pastef yi dama gën a motiver lii daf ma gën a motiver daf ma dafa gën a tax non seulement même su dee personne Ousmane Sonko moo ñu intéressé mais dafa gën a tax. Mhm. ma naw président Ousmane Sonko dafa gën a tax projet patriotique bi. Mhm. ma gëm ko. Mhm. nekk si. te di si continuer di si nekk te noonu la ko militant Pastef yëpp ak sénégalais yëpp gën a gën a euh, nekkee si ginnaaw Ousmane Sonko keroog bu mu demee bu mu demee hôpital Grand Yoff di seeti blessé yi mais maa ngi fa woon mais médecins yeeg infirmières yëpp a génn. di ko di ko encouragé di ko félicité depuis depuis euh, événement yi ba léegi këram daanaka comme palais de la république audience sur audience ñëpp a fay ñëw ñëpp. Sénégal ñëpp fay ñëw di ko di ko di ko encouragé. mais mais Bassirou sànq yaa ngi wax euh, université ak nee nga tamit seen stratégie euh, du ngeen ko wax. démb sax gis naa ki nga xamante ni tey mooy gouverneur bu Dakar tere li nga xamante ni mooy njaayum carburant ci bu tey yeeg yooyu mais yéen Bassirou yéen yéen est-ce que nag maanaam tuumaluñ leen te yee fitna daal maanaam yéen wàcc si mbedd mi defante ay mortal combat utilisation mooy terme yi ngeen utiliser menace de mort bëgg indi jëyee ci réew mi yéen loolu ñu leen di tuumaal Bassirou est-ce que baax na ci seenub der waaw xam nga nag euh, man des fois suñu état bi dañ may xaw a jaaxal ñun li ngay gis nii yëpp démb maa ngi gis euh, dëgg la dafa ma ay reetaan sax la ma def mooy bu ma gisee arrêté gouverneur bi ne buñ jaayatee essence si si bouteille yeeg yooyu man ñi ma yërëm rek mooy ñi nga xam ne dañoo am ay groupe électrogène wala seen entreprise seen usine war war dem jëndi essence xam xaw ma ñooñ ni ñuy def waaye li ma ci bëgg a wax rek mooy que lii yëpp déviation la. complot viol bi doxut kenn gëmu ko parce que complot complot politique du si kanamu ay magistrat ak ay juge nga koy xeexee complot politique comme ni ko Ablaye Wade waxee benn jour ci mbedd bi la ci opinion bi la. bataille de l'opinion bi gagné nañ ko ba pare parce que sénégalais yi majorité bi maa ngi gis wax sa xalaat yi maa ngi ñu ngi ci Sénégal lañ dëkk sénégalais képp ku am de bonne fois rek te bañoo Ousmane Sonko wala bañoo Pastef te waxul la ne xam nga ne lii taxawul léegi nag ñu bëgg ko dévier discours bi Ousmane Sonko def après la résistance lañ bëgg dévier di ne ñun dañuy indi violence ñun dañuy indi. insurrection insurrection foofu lañ ko bëgg a jaaralee léegi parce que xam nañ ne bee du dem loolu rek la déviation la loolu aussi c'est fondamentalement politique. encore une fois ñun mosuñu woote violence mosuñu woote dara jour bi jour bi euh, violence yooyu di am fi Ousmane Sonko dëkk dama lay rappeler kuy wootee violence kuy wootee insurrection say militant dinañu yeewu suba teel ñëw sa ñëw sa buntu kër nga ne yow da ngay woote insurrection insurrection kañ mooy loo xam ne xanaa ci réew mi yëpp la ñu ñëw sa buntu kër taxaw sol seen masque indi seen ay gel bi problème yi nga fa am mooy bi fa police ñëwee balaa bi bi bi commissaire bi ñëwee ne day def constat ku def constat dem ñun on avait prévu yàlla rek moo ma tax may wax maa ngi foon président Ousmane Sonko dafa bëggoon wàcc euh, tas militant yi ne leen ñibbi leen commissaire bi ñëw ne non je lui donne cinq minutes cinq minutes wax ko d'une manière benn ton bu discourtois. kan cinq minutes. nee na day jox président Ousmane Sonko dañ ko ne président Ousmane Sonko dina wàcc pour disperser militants yi pour ku ne ku nekk nga ñibbi sa kër mu nekk tamit cinq minutes laa ko jox d'un ton discourtois. Mm-hmm. ton bu ñu neexul dal 5 minutes pour président Ousmane Sonko wàcc wax ñooñu ñu dem seen yoon. bu ko deful. nen bu ko deful mooy li xew <laughs> mooy lacrymogène yi. Ah, le temps mais président Ousmane Sonko di préparé wàcc ci lañ commencé sànni lacrymogène yi. ñi fa nekkoon nag nekk ci koñ bu seere ñu ñu wër leen di leen sànni lacrymogène mais dañuy défendre. d'accord c'est normal. d'accord d'accord euh, Bassirou euh, li nga xamante ni tey mooy ñu ñëpp ànd nañ ci mooy Ousmane Sonko député la waruñu woon ko euh, convoqué gendarmerie xam na loolu. police tamit bu fay dem même su dee jëliwul Ousmane Sonko police waroon na communiquer comme ni ko àdd bi yëpp yi defee. police mën na communiquer que ne ñëwuñu fi pour jël si Ousmane Sonko wala dara. mais yéen euh, du luy xew du dakaar kese la xewee xew na euh, xew na feneen ay manifestation ba ñu teg fa loxo nit mais depuis lors gisuñu benn yoon Ousmane Sonko communique ci page Facebook am woo ay militant am ngir ñu ànd ak dal ak lu man di xew. ndax lan lu tax Ousmane Sonko euh, defu loolu wala parti bi communiquer ci. ñun suñu ay militants ay militants yu am dal ay militants yu tey ay militants yu patriote lañu am te damay dama siy profiter sax si occasion bi dix-neuf personnes yi ñu jàpp camp pénal otage te defuñu dara nañ leen libéré huit personnes yi ñu jàpp Bignona te defuñu dara nañ leen libéré coordonnateur Pastef Dakar Abass Fall bi ñu jàpp Fatima Meng bi bokk FRAPP bi ñu jàpp. jàpp ko jàppaat ko si même semaine ñaari yoon deuxième fois bi ñu koy jàpp moom moo dem da dem dik di yóbbul Abass Fall moomu lu mu lekk ñu ne ñu woo ko bu muy dugg lañ ko woo jàpp ko mooy méthode yu doy waar si police. jabaru Biram Souley ak Biram Souley nga xam ne instant bi mi ngi dikk nañ leen libéré dayiru caam nañ leen libéré ay otage politique lañ dara defuñu ko ñun duñu parti buy woote violence ngir yàlla nañ xool suñu histoire ñun duñu parti violence Ousmane ko wootewul violence musu ko woote xamu ko ñii violence ñi seul parti Sénégal bi am milice tuddee ko les marrons du feu APR la ngir yàlla est-ce que mos nga gis mos nga gis procureur de la république yey si wala yàbbi si musul am lu tax ñun ñu ñuy stigmatiser mais loolu loolu mooy justice boo xam ne justice kumba am ndey la ak kumba amul ndey amul. amul benn violence bu ñu ne jour boobu violence yi dëgg la bëri mais yow est-ce que yow mën nga ma assurer ne sëñ Abdou Khad li xew yëpp jour boobu. ñi ko def ñëpp waa Pastef la. loolu mënoo ma ko wax. dëgg kenn ñoom mënuñu ko prouver jour boobu kawo bi fa am police. police moo ko def man fi ma nekkoon. mun naa ko wax police moo fa indi kawo boobu police moo ñëw manque de communication comme ni ko waxee. ñëw jaay doole ñëw sànni sànni lacrymogène nit soo leen soo leen wëree di leen sànni lacrymogène dañuy défendre c'est normal. d'accord mais euh, Bassirou li ma wax mooy noo non yéen euh, yéen waa Pastef léegi euh, ci li nga xamante ni tey moom mooy yéen dangeen a wax ne dañu leen a yàgg alerte na leen dinañu leen tuumaal lu jëm ci wàllum wàllum jigéen te tey xam nga ne tey par exemple tey góor buy dem salon. Euh, war nañ la mën a fu pour ñu tuumaal la fa wàllum jigéen euh, lu yomb la est-ce que yéen yéen a bëgg am riir wala yéen a bëgg mbumbaay moo tax ngeen continuer de fa dem ndax wax dëgg yàlla man man man sama bopp ku ne ma woon tey Euh, ci ay information yu leer ci nit ñu ma gëm. ñu ne ma réew mi FM foofu ngay liggéeyee jóge fa ndax boo fa jógewul danañu la fa def nangam ji danañu la fa def accuser nangam ak nangam vraiment ma dama fay jóge yéen lan moo tax pendant des années ñu leen di alerter te ñi leen di alerter yéen ngeen ne ci biir euh, régime Macky Sall la ñu nekk. léegi ngeen lànk di continuer di dem ci salon ba même bu dee yéen violé wu leen defu leen dara mais seen der instant bi yàqu na ci àdduna bi euh, lu mais si. mais chaque jour ñoo ngi leen di wax mbiru viol te mbir la moo xamante ni tey pour mu dañ ci ci ci ci deru Ousmane Sonko euh, dina nekk loo xamante ni lu lu yàgg la euh, dem di ngeen fa doon continuer dem laa bëgg nga expliquer ma ko te ñu alerté woon leen ne leen danañ leen complot. waaw fi nga mujjee laay laay laay njëkk a commencé suñu der yàquut man de gëm naa ne lu lu ma gis la sax bi bi affaire viole bi supposé amee ba léegi. mosuma mhm. gis lim bu takku buy dugg si di jënd carte Pastef. mosuma ko gis. tey lañ ëpp militant que avant affaire bi yëpp di am. wax nga léegi jox nga sa exemple nga ne soo doon ñëw réew mi FM ñu lay ñu lay ñu naan la fii bu fi ñëw nag lii dina la am doo fi ñëwti. waaw léegi soo ñëwul réew mi FM loolu tax ñëwatoo réew mi FM nga dem leneen FM ñu ne la foofu tamit soo fa demee lii dina la dal nga dugg sa oto ñu ne noo non sa oto soo fa duggee kii lii dina la dal nga dem sa kër ñu ne non sa kër soo fa duggee lii dina la dal waaye yow nga dundati waxuma ne que dañ ñu ne. di ngeen am dañ leen tuumal dara si jigéen si affaire mœurs mœurs mun na nekk lu nekk tey ji Ousmane Sonko su doon sax euh, nga baal ma ci wax ji waaye su doon sax góor a maase góor bu mel ne moom mun nañ ko tuumal leneen mun nañ ko tuumal borom ñaari tuuri su leen neexee Ousmane Sonko expliqué na ko keroog dëgg la avertir nañ ñu nee nañ ñu lii ak lii mais Ousmane Sonko euh, da doon soulager doom mu am benn petit problème bu xëy na boo xam ne su toogee di liggéey wala dara benn instant loolu di metti mu jug dem na fi nga xam ne foofu la ay moyens toll foofu mi ngi fay dem mu gis ne que amélioration am na ci li koy metti mais dafay continuer di dem loolu lu logique la est-ce que Ousmane Sonko d'accord am na lu mu représenté si réew mi d'accord député la d'accord espoir nit yu bëri mais tamit nit la loolu dañ nga koy nangul mi ngi dem foo xam ne fa la fa ay euh, ay moyens am toll mi ngi fay mi ngi fay mi ngi fay feju mu ngi gis ne que yaramam saa yu fa demee mi ngi tane mais dafay continuer di dem. dem na fa defu fa dara bon ñu ñu def seen seen affaire yu salte yi loolu rek la. amul amul leneen. waaw mais xam nga Basirou tey sénégalais bi nga xamante ni tey euh, même nekkul ci politique euh, di observer war naa xam ne projet bi nga xamante ni tey moom la Ousmane Sonko gàddu. Mm-hmm. projet la boo xamante ni képp ku ko mos gàddu ci Sénégal wala ci wala ci àdduna bi dañu lay faagaagal ndax projet bu mel noonu képp ku ko yore ak discours bi Ousmane Sonko koy tenir képp ku ko tenir. war nga xam risque yi nga xamante ni moo la ci moo la ci mën a fekk képp ku mën a am jàngat tuuti war nga xam ne ñu tuumaal ñu tuumaal Ousmane sonk mbiru viol euh, moo gën a tuuti ci li nga xamante ni tey moo ko ci mënoon moo ko ci mënoon a fekk ndax jëloon na tey euh, ay matukaayam ndax tey Ousmane sonk moom buy wax mbiru franc CFA di wax ci ay entreprise française entreprise étrangère yi euh, mu nekk loo xamante ni tey bëri na ñoo xam ne Ousmane Sonko dafa menacer seen intérêt te ñun ñëpp ñun d'accord ne li nekk ci réew mi ñun moomuñ bu ñu moomee réew mi tamit li nekk ci biir réew mi mën nañoo jàpp ne li ci ëpp nasaraan si ñoo ko moom ak discours bi Ousmane Sonko tërir tamit ci biir réew mi mu yéen mu leer na leen ne am na ñoo xam ne ci biir mi arrangé Ousmane Sonko wu leen ci bitim réew Ousmane Sonko wu leen ngeen assumer discours boobu est que tamit mënu leen woon a gën a mën a jël seeni matukaay euh, ci fi Ousmane Sonko teg tànkam. gis nga sama sëriñ euh, Abdou Khadre Ousmane Sonko ñun wala ñun waa Pastef ñëpp suñu analyser risque yi peser si ñun rek nag discours bi ñuy porter nag projet bi ñu am pour Sénégal waxuma la salon de massage de waaye këram du fa génnati parce que rey ko bakkanam xaj na si il faut tam ñu comprendre loolu euh, Pastef dafa nekk parti bu révolutionnaire si sens que dafa porter benn projet boo xam ne musta am Sénégal jeunesse su Sénégal nga xam ne ñoo ëpp si Sénégal ànd si projet boobu ma ne la bakkenu Ousmane Sonko xaj na si son Ousmane Sonko day xool rek moom intérêt personnel am ak ak dundinam mais kon du génn génnati këram kon Ousmane Sonko du sax defati politique day toog rek noppi parce que bakkenam xaj na si donc kenn loolu loolu leer na mais nit la dafa am ay besoin dafa war a dafa war a génn dafa war a day dafa war a liggéey dafa war a yóbbul dafa war a yóbbul njabootam dafa am ay soxlaam yu muy dox loolu tam dafa am su doon dañ nekk si si réew bu civilisé réew mu normal réew mu démocratique mais Ousmane Sonko ak li mu représenté si opposition day am protection wu état bi état bi si boppam moo ko waroon protéger protéger ko euh, euh, fu mu mun munti dem mu ñu ñu topp ko euh, assurer sécurité am soon soon ñi ngi ko séqal ay ay nit lañ ay démocrate lañ looloo waroon am mais Ousmane Sonko lii deewam xaj na si parce que projet bi muy porté li muy menacé intérêt yi muy menacé système bi lay menacé donc deewam xaj na si su dee dafa su dee loolu rek moo tax kon du du sax génn kër waxuma la ay salon de massage mais këram du fa génn. d'accord euh, jërëjëf euh, mbokk yéen a ngi déglu réew mi FM seen émission pencum réew mi euh, tey ñu invité Bassirou kebe mu bokk ci bureau exécutif mouvement des cadres yu Pastef Bassirou yéen seen parti bi parti la boo xamante ni maanaam yéen. bari ngeen coow trop bëri ngeen tamit am riir Basiru euh, mais yéen bi ngeen defee li nga xamante ni tey mais non Basiru loo xamante ni tey ñe Sénégalais yu bari ràññee nañ ko mooy Pastef parti la boo xamante ni bi mu juddoo euh, Sénégalais yu baree baree bëri gis nañu ci seen bopp doxin bi nga xamante ni Pastef ma ngi koy doxee tamit ci mobilisation di dajale ay nit ñu baree bari loolu teg nañu si euh, seen bët kon yéen tamit waroon ngeen a mën a am vigilance bu baree baree bëri mais est-ce yéen ñi nekk Pastef ndax mën nañoo wax ne ay xale ñoo nekk Pastef euh, ay xale ñoo xamante ni tey ñi nekk ci kanam ñi ñuy gis mën nañoo wax ne ay xale lañ euh, te politique te tey bu doon yeneen parti ñu ne gis nañ fa ay mag ay kàngam wala nàngam mais yéen est-ce que du seen ñàkk euh, seen ñàkk expérience bu bari moo tax lii dal leen Abassirou noo gëw ma ko nag wax dëgg yàlla gëw ma ko gis nga Pastef dëgg la bëri na xale trop nag xale yi nag ñoo yor Sénégal soo Sénégal yaakaar naa 65 pour cent population bi yëpp euh, seen 30 euh, ans matawul. donc loolu force la force lu du faiblesse te du mës a nekk faiblesse ci Pastef waaye nag Pastef aussi am na ay mag am na ay nit yu am expérience am na ay nit yu am jaar-jaar dafa am. Euh, yaa ngi naan sànq xam naa yaa ngi tooñ naan ñun parti bu bëri riir lañ parti bu bëri buzz lañ et cetera mais est-ce que gis ngeen li Pastef indi. si si parti boo xam ne soi-disant amul expérience li Pastef indi ci landerneau politique bi ak si société bi de bi mu bi mu bi mu amee ba léegi Pastef mooy parti boo xam ne euh, day dégg ne deret manqué na si centre de transfusion sanguine yi ñu ngi jooy deret Pastef organisé militant am yëpp joxe deret ba waa centre de transfusion sanguine amatuñu fu ñu ko dugal mm. amatuñu espace bu ñu ko dugal loolu mooy Pastef loolu mooy Pastef Pastef mooy partie boo xam ne ay jeunes yoo xam ne mosuñu bay xamuñu sax fu tool féetee dëkk dakaar fii mel ne man ñu dem bay loola nga bay ñebbe dugub ceeb ça dépend si région bi nga nekk waxuma la loolu de nga bay ba pare waaye li nga bay suñ koy jaay yow yaay yow yaay si jëkk dem jëndi ko te yaa ko bay loolu Pastef la mille vingt production agricole Sénégal kenn mënu si génne li patriote yi def loolu tamit mooy mooy mooy Pastef Pastef mooy euh, social dimbali nit yi utal utal utal nit yi liggéey créer ay projet loolu mooy Pastef Pastef mooy nemmeeku tour mus nga gis Sénégal parti. organiser ngeen fi ay cours de vacances. cours de vacances yaa ma koy fàttali sax fàttewoon naa cours de vacances patriotique ñu ñuy tere ñu koy organiser ci classe yi parce que ñun ñoo ko doon parce que ay patriotes ñoo ko def ay professeurs enseignants yu nekk Pastef volontaire pour yëkkati niveau xale yi ak Covid bi ni mu amee ba xale yi respect euh, école respecté wu ñu quantum horaire yi ñu ñun ñu def loolu. mais loolu yëpp dañ loolu loolu ñun ñi ngi liggéeyal état bi ñi ngi liggéeyal Sénégal def nemmeeku tour maanaam leader bu mus a woote fii parti yi ñu xam yëpp leader bi mooy jaar si état bi euh, am xaalis xaw ma nag nu mu koy amee doy na waar di financer parti yoom kenn du cotiser président Macky Sall mos na fi toog di kaas lool ne waa APR du ñu cotiser ne moom mooy génne xaalisam mos na ko toog wax ko fi leader woo la boobu sax du ma ne sax leader parce que Ousmane Sonko sax yéegu ko initiative ay militant Pastef la yu diaspora ak fii. ñu ne dañuy cotiser suñu leader pour mu dugg saafonteeg sénégalais yi pour fi ñee jaaroon ñëpp yàq deram si lu bëri mu jaaraat fa ba 2024 incha allah ñu am benn majorité bu ñuy permettre ñu ñu mettre suñu projet patriotique ay nit cotiser joxoo leen ñu lekk joxoo leen ñu naan ëppoo leen dara ñu cotiser pour yow nga def loolu Pastef rek moo ko fi def innovation yooyu suñ nekkoon suñ nekkoon si réew boo xam ne démocratie mi ñu fiy dox vraiment ñëpp dañ koy saluer Pastef loolu la indi malgré suñu inexpérience boobu ngay wax loolu yëpp ñun ñoo ko fi njëkk def donc loolu tamit dafa am solo ñu noté ko buzz bi ñu am nag xam nga nag loolu moom yéen journalistes yi tam am ngeen si wàll. si on mais Bassirou tamit yéen euh, tey Pastef euh, ñi fa nekk ñëpp wala ñu bëri ñu nekk Pastef dañu nekk euh, ay cadres yoo xamante ni dañuy liggéey ci administration est-ce que du caage ne tamit. ñi liggéey ci administration bi dossier yooyu ngeen di jël euh, di ko exploité naan rapport sangam rapport sangam est-ce que du loolu tamit sukkandiku leen si pour dox ci maayanu sénégalais yi. waaw man dama lay laaj est-ce que mus nga est-ce que yow mun nga ma wax benn dossier bu ñu mus a génne ah te yow mii di journal yow mënoo si am accès. amul c'est-à-dire nga seet fii ba suba même ba li taxoon ñu rajee Ousmane Sonko ak rapport yi ñu kii yëpp mais rapport yi c'est des rapports la ñuy exploité ñun dama la wax mën naa la révéler benn secret si ñuy liggéey rapport su génnee muy rapportu OFNAC muy rapportu Cour des comptes muy rapportu IGE ak bu rapport bu mu ti nekk dañu am ay ay kàngam si secteur bu nekk mooy suñu mouvement de cadres bi ay commission comme gouvernement bu gouvernement amee ay ministère noonu la ñu amee ay commission mais dañ koy étudier xool li nekk ci rapport rapport boobu exploité ko rapport boobu yow mi man ak yow ci yëpp mun nañ ko Sénégal bu mu neex mun na ci am donc amul benn secret Ousmane Sonko bi mu doon dénoncé bu mu doon dénoncé assemblée nationale lu ñu fay impôt mais soo duggoon ci ministère de l'économie yow gis ko amul daara lu ñu fi wax loo xam ne dañ ko xëccee ci ay dossier ay bureau administration ñëw di ko génne amul te fii ñu ko mus a génne parce que loolu amul te Pastef moo la benn affaire nag xëy na yoo xamoo woon information laay jox Pastef du ay ñu nekk ci administration publique ñoom rek man mii nekk sa kanam privé laa bokk du ma fonctionnaire musuma nekk ci administration publique sama liggéeyu bopp laa yor musuma nekk ci administration publique te du man kese bëri nañ fa ñu ñoo xam ne loolu da xam dañu sax dañuy jël ay risques parce que état bi ñu bi ñu ko seqal nii suñu xamee ne yow Pastef nga bokk voilà am na yoo xam dañu lay traité comme yow sous-citoyen nga moom nekkatoo sénégalais à part entière moom donc Pastef dëgg la ñu nekk ci administration bi ñu ci gën a feeñ parce que bi ñuy sos Pastef ñu nekk ci administration gis loo xam ne baaxul ci réew mi ñoom ñoo dem sos ko woo Ousmane Sonko ne ko yow yaa ñu doy wu ko jiit noonu la commencé loolu nag suñu histoire la duñ ko mus a weddi waaye ñiy rejoindre Pastef du boobu ah, Pastef ñëpp a ngi fa enseignant yaa ngi fa ñi nekk si entrepreneur yaa ngi fa étudiant yaa ngi fa ñi nekk si administration ñi ngi fa euh, euh, chômeur itam ñi ngi fa ñi nga xam ne ñi ngi ut liggéey ñi ngi fa ñëpp a ngi fa Pastef c'est melting pot Sénégal la Sénégal yëpp ñu ngi fa si ah, mais est-ce que Pastef parti bu bu bu bu ñu bu ñu bu ñu parti la boo xamante ni bu structure la woon boo xam ne dañ ko structuré euh, ba nga xamante ni tey mën nañoo wax ne euh, comme ni nga ko waxee sànq ne état di doxe est-ce que euh, structuration bi est-ce que am na Pastef. waaw yow looy lan ngay lan ngay wax si lan mooy structuration pour yow. comme par exemple tey ñu ne ñii ñooy cadres yi ñii mm-hmm. ñoo jiite femmes yi ñii ñoo jiite jeunes yi. Euh, ñii ñoo jiite euh, ñii euh, gox boo mën di dem ñu ne kii boo fa demoon tey fu mel ne tey département boo dem wala commune boo dem ñu ne kii moo fa moo fa moo fa teewal Pastef ba pare tamit ci biir cadre yëpp kenn ku nekk am na loo xamante ni tey moom mooy sa moom mooy wareef boo soxla woon tey communication wala wala nangam. ah dëgg la léegi comprendre naa question bu baax si plus de 550 communes yi am Sénégal yëpp ak 45 départements yi fépp foo ci dem loolu moom je mets tout le te mun nga ko vérifier fépp foo dem am na représentant Pastef te li neex si Pastef xam nga lan la mooy que ñun cellules yi ak ñi jiite commune yi ci suuf la jógee maanaam du parti bi moo ne dañuy dem commune bi yow yaa ñu fay jiite ñoom o contraire ñu si bëri si commune yi ñoom ñoo créer seen cellule créer seen coordination ba pare yëgal parti bi ne ko créé nañ fii créé nañ fii noonu lañ ko commencé bu muy soog commencé dëgg la nekk ñu woon si commune yëpp nekk ñu woon si département noonu lañ ko defee ba maayee territoire bi yëpp du ma ne parfaite parce que organisation bu parfaite amul mais une organisation complète am nañ mouvement des femmes am nañ mouvement des cadres am nañ mouvement des enseignants am nañ comité de pilotage mouvement des cadres bi ma bokk soo si duggee commission yëpp a ngi si environnement éducation santé di liggéey nag président Ousmane Sonko su demee assemblée nationale loolu mu fay wax yëpp su ñuy def loi des finances mais yooyu yëpp c'est parce que cadres yi dañ ko étudier euh, ko jox ko ni ko point ngi nii point faible yaa ngi nii. ministre bi lii la waxoon amul lii lii la ñu war a def lii la état war a. li muy wax daal du wax Ousmane Sonko li muy wax ci conférence de presse wala assemblée nationale euh, yéen yéen koy yéen a waxtaan ba déggoo ci wala Ousmane Sonko mooy dem rek wax wax yi liggéey la liggéey bu ñu bokk Ousmane Sonko bien sûr dafa am xam-xamam am ay dossiers xam lu muy wax waaye ñun it dañ ko siy jàppale commission yëpp su waree ma jox la exemple su ministère de la santé waree jaar assemblée nationale xam nga Sonko c'est pas un de la santé waaye am na lu mu si xam dañuy commission santé bi nekk si mouvement des cadres day jël loi des finance bi étudier ko xool li ministère bi def rapport d' exécution loi des finances bi cour des comptes di def yëpp xool li ministère bi exécuté année bee yëpp jox information yëpp Ousmane Sonko ko génneel ko euh, si war a wax yëpp moom mu tamit mu càmbaraat ko ak équipe am su demee wax mais député noonu la ñu koy jàppale moo tax moom mu nekk député bu am njëriñ si askan bi bokkul ak nga xam ne. dañuy nekk assemblée nationale di tàccu lu ñëw ñu voté. vrai député la te bi nga may at loo ko waxal. sénégalais yu bëri nangu nañ ni bi mu demee assemblée nationale ba léegi gis nañ ne que liggéeyu député nii la war a jaay te Ousmane Sonko si loolu la si loolu la nekk. Euh, jërëjëf euh, Bassirou Kébé euh, léegi dinañ ñëw ci assemblée bi war a bi nga xamante ni jublu na ci mbir Ousmane Sonko. ak waaw ak arrestation yi tamit dina ci ñëw mais yéen dañu gis ne fan yële jàll bi ngeen di laaj xaalis. ñeen ñi di leen tooñ naan leen deen war laaj yalwaa nag xeet yooyu noonu seen parti bi ministre bi tere leen ba pare bind communiqué wax ne menacé leen pour tass li nga xamante ni mooy parti Pastef léegi nag euh, fi mu ne nii ñuy waxee ñi nga xamante ni jàpp nañ leen ci Pastef euh, wala ñu jàpp ne ci Pastef la ñu bokk mm. euh, dañu leen di tuumaal ay mbirum insurrection di tàmbali di tudd ay atteinte à la sûreté de l'État bëgg a taalum réew ak xeet yooyu est-ce que yow jàppoo ne état bu Sénégal mën na fee jaaree tas li nga xamante ni tey moom mooy euh, moom mooy parti Pastef ndax mbirum viol gi comme ni nga ko waxee sànq vraiment ñu baree bari instant bi euh, li ñuy wax rek mooy fitna yee fitna est-ce que état mënul sukkandiku ci euh, fitna bi bi ñuy leen di tuumaal na la ngeen a bëgg a taal réew mi ba tas li nga xamante ni mooy parti Pastef. gis nga sëñ Abdou Khadre ma dénk la dara Pastef kenn mënu ko tas nee ma lu tax. lu tax Pastef du ab tur. Mhm. Pastef du ab bâtiment. Pastef xalaat la idée la Pastef projet la Pastef gëm-gëm la Pastef lu nekk ci xol la ak lu nekk ci xel yi Pastef kenn mënu ko tas te ministre boobu noonu tuuti na si trop pour tas ko moo tax li muy wax ñun intéressé wuñu gis nga ñun nag mun nga ñu wax inexpérience yu ñu nekk lu lu la neex mais ñun du ñu ay cuune aussi ñun du ñu organiser suñu nemmeeku tour sans jël suñu ay précautions sans xam li loi bi wax. ak li loi bi waxul xam nga ministre bu génn deux heures du matin di bind ay communiqué di viser benn parti alors que la loi est générale et impersonnelle. mais yéen lañ gis ngeen koy def moo tax. kooku kooku. mais yéen lañ gis. waaw déglu ma kooku même même suñu gisoon kooku kooku duñu ñu wax ak moom li ñu def et je le waxaat fii si Sénégalais yëpp dégg ko nemmeeku tur bi lu légal la lu parfaitement légal ay sénégalais yu mel ni yow ak man. ñoo cotisé ki am mille francs joxe mille francs ki am 10 000 joxe 10 000 ay sénégalais lañ sénégalais yi nekk diaspora it ay sénégalais lañ dañ si cotiser on a am nañ liste ñi cotiser ñëpp muy fii ak diaspora ñoom ñëpp ay sénégalais lañ ñoom ñoo cotisé ni dañuy jàppale seen leader mu dem gis seen moroomu sénégalais dugg si dugg si réew mi loolu moom débat boobu ñun dépassé nañ ko. ñu Pastef kenn mënu ko tas te incha allah kenn du ko mës a mun a tas. d'accord léegi léegi yéen euh, am na ñu bari ñu teg loxo. ci ñoo xamante ni tey dañoo jàpp ne si ñu doon manifester lañ bokk. waaw ñoo waa arrestation yooyu. te liñ leen di tuumaal nag euh, tuuma yu garaaw a garaaw la euh, loolu noonu lan moo ci sa xalaat ak jàpp googu tamit est-ce que tiitalu leen ba nga xamante ne fi mu ne nii ànd ngeen ko dal. ndax bu dëkk moom seen yaram tàngoon na lool mbir mi di xew. waaw wax naa ko sànq bi ñuy tàmbali émission bi lii yëpp c'est parce que complot bi complot cuune bi doxut matul li xale yi di wax dil bi setul loolu moo tax ñu bëgg jaarale ko feneen nan la ay insurrection ak ay menaces ak yu kenn xamul. atteinte non atteinte de la sûreté sax dindi nañ ko. dindi nañ ko parce que moom lañ doon wax ci début semaine waaye léegi. léegi ñii lañ ko dindeel ñoom Abbas. waaw mm. xam nga dindi nañ ko pour ñoom. Mm. léegi ñi ngi ñi ngi ñi ngi wax naan menace ak yu kenn xamul dégg naa ay ay menaces su ay euh, Mahmoud Saleh Souleymane Niaye man damay laaj ñii ñi ñuy déglu te am xalaat te am xel. ñun Pastef ban intérêt lu ñu Souleymane Ndéné Ndiaye ak Mahmoud Saleh amal menacé leen fan la ñuy yóbbu amuluñu amul sens kenn ki mu rey na boppam ba pare moo ne ko transhumé dañ ko war a pendre moom pendre na boppam keneen ki xam nañ ko complotiste la nekk si nekk si trotskiste la xaw ma communiste xaw ma lu mu doon nekk ci ginnaaw mag yi def ay saal ko amul ñooñu ñooñu c'est pas duñu ay référence su ñun amul joxuñu leen importance bugguñu mel na ñoom bugguñu sax suñuy doom mel na ñu du duñu ay référence kenn ci Sénégal ñooñu ñun amuñu seen jot lii c'est une prise d'otage dañu xam ne euh, euh, complot bi doxul ñu gis capacité de résistance Pastef ñu yaakaar ne que suñu jàppee Abass Fall nga xam ne mooy coordonnateur Pastef Dakar suñu jàppee jabaru euh, jabaru biram nga xam ne biram moom jabaru biram nga xam ne politiqueul yoonam nekk si biram moom mooy administrateur dañuy déstabiliser parti bi maanaam capacité de réaction ak capacité de résistance su parti bi la ñuy yàq lu yëpp loolu moo leen si dugal mais nañ xam ne ah juum nañ juumati nañ parce que gis nga soo soo soo njëkkee nekk cuune bëgg rectifier sa cuune di di da ngay gën a dugal sa bopp da ngay gën a soo soo reculer wul rek soo amul euh, soo gëmul yàlla wàcce sa bopp ba xam ne juum nga reculer ngay gën a foncer parce que bëgg nga toroxal ñi te yow buggoo bëggoo am humiliation ngay gën a continuer di nga gën a di nga gën a humilier sa te si loolu lañ nekk nii j'exige nag au non du de Pastef ñu libérer suñu otage yi suñu 19 yi nekk Cap Manuel suñu 8 yi nekk Bignona ak Abass Fall Madame Diop Dayru Day Dayru Dayru Dayru Thiam Fatima Meng ak ñi ñu jàpp démb nga xam ne dañ dem di def lettre d'information au préfet pour manifestation ñu ne leen ñu jàpp leen loolu Sénégal rek la am loolu mooy lii yëpp day wane ne que démocratie. Sénégal moo reculé sous Macky Sall depuis 2012 reculé rek la ñuy def. d'accord mais léegi euh, bala ñoo ñëw ci assemblée nationale mais est-ce que tamit du irresponsabilité ci Ousmane Sonko keroog bi mu demee euh, bi mu demee université ak euh, mbas mee corona beeg yooyu mbooloo mu bari moomu dajaloo est-ce que loolu wala provo wala du est-ce que tamit jàppoo ne ñenn ñi dañu jàpp ne provocation la aussi. maa ngi dégg keroog waa étudiant libéral li xaw ma nu ñu tudd sax. républicain républicain taxaw di wax. naan xaw ma waru fi dugg su fi duggaatee xaw ma damay wax benn affaire déjà dañuy dem si benn principe. université Cheikh Anta Diop wala université Gaston Berger étudiants yi fa nekk di fa jàngee moomuñu ko université sénégalais ñoo ko moom suñu ay impôt ñoo koy fay seen ay bourse suñu ay impôt ñoo koy fay Ousmane Sonko su ko neexee day dem université te demu fa woon pour show. Ousmane Sonko dafa dem pour seeti étudiant bu blessé comme ni mu ko defee keroog hôpital Grand Yoff. mais raxu ci politique. waaw déglu ma keroog mu demee hôpital Grand Yoff si boppam man maa ngi fa woon ci ñi ko accueillir laa bokk def nañ tout ñun ba coow du fa am ba bruit du fa am parce que hôpital la médecin yi si boppam infirmier ñoo génn di ko encouragé dafa dem université c'est une manifestation spontanée étudiants yi ñoo sentir loolu seen xol génn won ko président Ousmane Sonko bi muy ñëw bi ñuy ñëw avertir ñu annoncé wuñu ko euh, euh, defuñu fa meeting politique léegi nag su dee étudiants yi ñoom seen bopp li nekk seen xol ñu génn ko mais dañ ko war a wax mais ñun euh, dañu Sonko police ak ñoom xam nga lu tax jour boobu étudiants yooyu ak i Ousmane Sonko dañu ko bëggoon kunge ba këram président Ousmane Sonko ak protocole am ñoo ne leen non non loolu du am dañuy respecté police respecté parce que soo leen fi génnee naan da ngeen ñuy kunge problème mun na si am yem leen fii mu tàggu leen mu dem yoonam mais fii su dee ay manif mobilisation la ñuy wax Macky Sall en plein Covid dem na fi naan day def tournée économique mbooloo topp ko dem na fi si inondation Kër Massar waa APR yi garé ay car rapide entre Kër Massar di ko accueillir ministre de la santé def na ko fi soxna président dem na fi ay ay ngénte ak ay ay ay mariage ñëpp gis ko mobilisation am fa kenn waxu si. d'accord mais Bassirou euh, euh, Bassirou communiqué Abdoulaye Wade bi tamit euh, yéen nan ngeen ko jàngate ndax dafa xaw a bëri coow tuuti ñenn ñi jàpp ne dafa xaw a xas Ousmane Sonko daf ko xaw tootaal tuutal yéen lan moo si sa jàngat ci communiqué boobu. Ablaye Wade suñu maam la dèjà ku ñu respecté la nekk ancien président de la république du du tey rek yàgg na conseil Ousmane Sonko soo fàttalikoo baax si élection 2019 euh, yi Ousmane Sonko sax benn instant bàyyi woon na campagne am nag dem wuyu Ablaye Wade kon ku ko jox cër la Ablaye Wade ku ku ku combattre opposition 26 ans. ñun Abdoulaye suñu suñu suñu joxul woon conseil la ñuy tiit su noppi woon si ñun si la ñuy jaaxle mais tant que te na ko continuer tant que mi ngi ñuy jox conseil dañuy jël amuñu dara dara luñ koy ngànj dara. d'accord euh, Bassirou euh, li nga xam ne moo jëm ci immunité parlementaire Ousmane Sonko euh, li nga xamante ni tey mooy bureau assemblée nationale saisir nañ leen ñoom jël nañ dossier bi jox ko commission des lois commission des lois taxawal na li nga xam ne mooy commission ad hoc commission boobu Euh, taxawal nañ ko ba pare mais coow li bari na si ndax ñu bari dañu wax ne euh, li nga xamante ni tey mooy procureur li mu jéggal jébbal mu Moustapha Niass euh, contre x lañ ci def loolu xaw na si bëri coow mais leneen li tamit mooy Ousmane Sonko yóbbul nañ ko convocation mu bañ a jël convocation boobu lan moo ci lan nga si tontu. waaw balaa ñëw si loolu sax violation droit Ousmane Sonko yi moo bëri bi si njëkk mooy ñëw convoqué ko ne ko lundi 8 février boobu noonu da ngay wuy ji. nga convoqué député te amoo droit tant que jaaroo ci assemblée nationale booboo ci njëkk. loolu yëpp ñoom sax xamoon nañ ne fii lay mujjee mais loolu yëpp pour jéem a wane doole wala jéem a humilier nit ki loolu ci loolu lañ ci ci loolu lañ ci jublu woon. boobu jàllul Ousmane leen du ma wuyu mais soo leen sama malaanu kirlaay 9h 9h05 ma dem wuyu léegi ñoom ñu entamé seen procédure euh, ndaw si bugguma sax euh, jaaraat ci turam. bi muy porté plainte soi-disant plainte boobu ñu ne moom moo ko bind te bindu ko bi muy porté plainte Ousmane Sonko la cité yow gis nga plainte bi Ousmane Sonko la bind. dafa ne Sonko moo ko violé répétitivement di ko violé di ko violé di ko fekk foofu ko violé indi ak yooyu moom moo ko wax. bi bi mu dese bi gendarme yi def enquête bu mucc ayib commencé éléments yi commencé euh, dindi tuuma Ousmane Sonko mu arrêté ko jël ko def réquisitoire introductif. maanaam loolu acte d'inculpation la maanaam commencé nga procédure jox ko juge d'instruction huitième cabinet cité dafa cité tour parce que duñ du x rek de dafa cité tour Ndeye Khady Ndiaye mooy ki borom salon bi ak x jox ko juge d'instruction bi. waaye x boobu mooy kan. x boobu mun na nekk yow mun na nekk man mun na nekk keneen. léegi x boobu si euh, jóge si réquisitoire euh, introductif introductif procureur ñu assemblée nationale mais kan mooy x. x mun mën na nekk n'importe quel député si cent cinquante cent soixante cinq député yëpp mën na si nekk n'importe qui lu tax ñu ne x mooy Ousmane Sonko te juge d'instruction ba fi ma lay wax nii defagul benn benn euh, jéego ci enquête bi ba pare jékki-jékki rek bëgg lever immunité jàmbur mais loolu moo normalul loolu dafa normalul Ousmane Sonko bañul wuyu ji Ousmane Sonko citoyen la su ko gendarmerie wooyee su ko police wooyee day wuyu si. mais day est-ce que mënu ko a yombal gars yi rek. day fekk non gis nga nag loolu la bañ nga sa question boobu ñun loolu la bañ wax na ko keroog si conférence de presse am cest à yombal ko gars moo amul Sénégal dafa am ay textes dafa am ay droits ngir yàlla nañ ko respecté ñi voté Ousmane Sonko ba mu nekk député dañ ko jox mbalaanu kiirlaay boobu pour protéger ko mbalaanu kiirlaay du rek du du du du du tekki ne que député bi moo moo gën citoyen wala waru répondre justice mbalaanu kiirlaay muy tekki mooy que si maanaam si république séparation ci démocratie séparation des pouvoirs député bi dañ koy protéger pour que exécutif bi wala judiciaire bi war a mun a bañ teg ko pression bu mu àttanul wala di ko di ko def loolu mu lu mu bëggul def looloo tax ñu koy protéger loolu Sénégal dañu war a comprendre ne. Hmm. loolu loolu lay jëriñ. dafa am solo moo tax suñ ko waree dindi. ngir yàlla ñu leen di laaj yomb na. nañ ko jaarale si yoon te bàyyi seen tappale yi suñ ko jaaralee si yoon Ousmane Sonko day dem wuy ji. parce que léegi lan moo tax mënul dem commission ad bi. wala information information boobu nag nga wax sànq man euh, lu ma si wóor bëriwul parce que fekkeewu ma ko te tamit informé wu ma si personnel donc mënuma ma si wax nga que gendarmerie dafa ñëw jox ko convocation loolu moom amaguma lu mu si leer kon du ma si du ma si mën a sori. mais yéen euh, Bassirou dañu gis ne euh, tey bëri na kilifa yoo xam ne bu ñu leen tuumalee dara yenn tuuma yi. dañuy teg seen ndomba tànk gis nañ ko ci biir Sénégal gis nañ ko bitim réew est-ce que woon loolu ci Ousmane Sonko. lu tax Ousmane Sonko di di teggi ndomb tànk si loo xam ne xam na ne complot la ñun gëm nañ ne complot la lu tax mu si tekki ndomb tànkam maanaam daal yow sénégalais yi mën nañ la fal bés bu état bi décidé ne dañ la war a sàqal pexe lu suñ la tegee tuuma rek foog nga dem du ko def Ousmane Sonko député la député boo xam ne day def liggéeyam sénégalais yi kon ñi ko voté kontaan ci moom ba mu jugee 37000 voix élection législative egg presque 700000 voix. Euh, malaanu kirlaayam am ko suñ ko bëggee déglu dañ koy yëkkati Ousmane Sonko du démissionner parce que Ousmane Sonko il porte un projet pour le Sénégal Ousmane Sonko espoir la d'une majorité de Sénégalais du démissionner démissionné wul tey démissionné wul ëllëg. dafa am mandat am te mandat am allah dina fa dina dina si nekk ba mu jeex. d' accord léegi suñu mujjantalu laaj mooy Bassirou euh, kebe yoo nga bokk ci bureau exécutif euh, mouvement des cadres yu PASTEF léegi yéen euh, nan ngeen laajoon naa la ko sànq seen stratégie. mais ñenn ñi dañoo njort si Sénégal par exemple tey booy waxtaan ni ci rédaction yi ci grand place yi kana yéen da ngeen a pare euh, pour ñi réew mi pour taal pour amal ay manifestation manipuler euh, étudiants yi ñuy grève euh, bloqué réew mi ñu bari dañ ne yéen kii boobu ngeen am stratégie boobu lan nga ci tontu est-ce que pare ngeen ak lu mën a xew ngeen ànd ko dal. damay répété waat waaye répétition est pédagogique taaluñu réew xamuñu nu ñuy taalee xamuñ ko sax xamuñu nu ñuy taalee réew ah. ñun ñi ñëpp ay liggéeykat lañ ñu bëgg seen réew ñoo xam ne politique indil leen dara lu dul ay problème mais nag daf ñu ko jaral parce que dañu bëgg suñu réew changé ñu gëm suñu bopp xel yi la taal te ñi ngi si depuis bi Pastef amee 2014 ba léegi ñi ngi si ñi ngi taal xel yi ñi ngi indi yëkkati nañ niveau débat bi avant ay débat wu ñàkk xorom lañ fi fekk yëkkati nañ ko léegi sénégalais yi ñi ngi intéressé wu si économique yi ñu ngi inscrire ci débat environnemental yi ñu ngi intéressé aussi débat yu am yu am solo yi te loolu Pastef ak lu ñu ko mën a waxal joué na ci rôle donc ñi ngi ñi ngi taal xel yi ñi ngi taal gët yi ñuy gis ne que ñi ñuy jiite seen seen njiit ak ni ñuy doxalee réew mi baaxul di dénoncer ba pare nag di proposer mais lépp lu mu laaj te droit jox ñu ko mooy suñu résistance à l'oppression incha allahu rabbi te loolu te loolu non déglu ma rek lépp lu mu laaj laaloo xam nga wàcc ci mbedd manifester constitution daf ko autorisé donc mun na si bokk mais dama ne lépp lu mu laaj te suñu droit jox ñu ko suñu constitution jox ñu ko incha allah rabi du arrestation yi ñuy def arrestation arbitraire prise d'otage yi bu lee dañ yaakaar ne loolu moo ñuy xooxatal Pastef tapet nekku fa. même bu ñu tegee loxo Ousmane Sonko. Pastef tapet nekku fa. lépp lu suñu lépp lu ñu war a def ah te te te te te te mun nañ ko def dinañ ko def incha allah su dee jàmmaar loolu laaj résistance résistance laa wax nag nay leer. résistance li ñu bloc constitutionnel may dinañ ko def incha allah te duñ si ñu si lu ñu si lu ñu si fekk ñu xam ne noonu la te ñu ngi woo sénégalais yépp nag ñu résister à dictature bi fi président Macky Sall bëgg a teg. jërëjëf euh, mbokk yi fii la ñuy tàggoo ak yéen euh, ki moo nekkoon Bassirou Kébé membre la ci bureau exécutif bu mouvement des cadres yu Pastef moom la ñu invité woon tey ci seen émission pencum réew mi ci rajo réew mi FM ngeen di sànd ak euh, Abdou Khadre Seck samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h Mamadou Diaw Dial moo nekkoon ci wàllu machine bi mbokk ñu leen di jox dig daje samedi bii di ñëw incha allah ci beneen jataay.